bismillahi irrahmani irrahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatam min lisaani yafqahu xawli bokk ñu déglu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu asbaxna wa asbax almulku lillah walhamdulillah wa la ilaha illa allah wallahu akbar allahuma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 wala teggi ni tukki teggi ni tukki ñu tàmbali woon ko ci yonent bi alayhi salaatu salaam bu sañoon kuy tukki dangay xëy alxames ngay dem waaw ku sañoon dëgg la nag soxla yeeg yëf yi nangam ak nangam waaye moom loolu la bëggoon tukkeem yu baree bari jeudi la daan dem daf daan xëyit waaw ndax gontu taxu koo wóor lool suñu bindu tey mu ngi jëm ci sopp nañu kuy tukki mu wut kum àndal sopp nañu ci kuy tukki mu wut ku ko wettili hmm? waaw sopp nañ ko ci de waaw waaw mu nga sopp nañ ci kuy tukki daal mu wut ku ko wettili nar fee jóge dem ba ndara yow dong cib oto wala jóge fi ba cël ma xam mbaakol yow dong cib oto bëggewuñ ko noonu sopp nañu it kii tukki bu amee comme àndal ñoom ñaar am ci koo xam ne mooy mooy responsable tukki bi waaw bu ay nit àndee di tukki dafa am ku ñuy responsabiliser defe naa lu ñu koy waxee ne ko yow tukki bi ñuy dem yaa ko jiite tey bu nogay ak xadi ak faatoog ay di tukki dañu naan kenn ci ñoom ñaar yaay amira lu yaay amira mooy moom mooy wax lu ko moy mën nañu di werante rek jàppal bayil jàppal bayil te duñ sotti waaw lu am solo la yonent bi jàngale fii euh, danaa ci indi xëy na ñeenti addis abdullahi ibnu omar bokk ci fóorey xeet wi baayam di saxaaba muy saxaaba nee na aleyhi salaatu daa wax ne law anna annaasa yaalamuuna min alwixda ma alam ma saara raakiban bi leylin waxda rawahul buxaari yonent bi nee na bu ngeen xamoon li ma xam <laughs> bu ngeen xamoon li ma xam ci tukki yow dong kon kenn lu tukki yow dong rawatina tukki bu guddi hmm? waaw waaw jàngale booba suñu oto yi xew a gudd xolo ko nekkoon sab oto yow dong ba toll baaba garage ci kaw péage bi paan fa hmm. walla nga jaar VDM 3 bii paan fa te yow dong nga hmm. waaw te yow dong nga yonent bi dana caay bu ngeen xamoon li ma xam ci tukki yow dong kon de kenn ci yéen du tukki moom dong rawatina tukki bu guddi rawatina tukk bi guddi te nag alayhi salaam mbokk yi li muy jàngale mooy li defar pénc mi ndax moom moo moo man moo man euh, journaliste yi alayhi salaatu salaam moo man formateur yi moo man DG yi alayhi salaatu salaam moo raw ilimaan yi raw sëriñ si ak notable yeeg chef de quartier yi ñi ñëpp mooy leen raw waaye moo raw politicien politicien yi moo tax li muy jàngale ci pénc bi suñ ko defoon formation te bañ koo def information dinañu amal njëriñ ñu ñëpp ma wax la ko tey nga xam ne danga jël sa këyit rek di note comme inspecteur Arfan ni mu koy defee waaw lu la romb rek nga kormet ko te nag di ko appliquer ni mu ko waxee njëriñ rek ngay gis mu ne kon su ngeen xamoon li ma xam ci tukki yow dong kenn tukki moom dong li mu teg kon mooy mi ngi ñuy aaya tukki ñun dong waaw jar na boo génnee dakaar di dem nga romb nit yóbbaale ko romb keneen yóbbaale ko ngeen ànd di waxtaan ba dem léeg-léeg boo kërweete yóbbu nit sàllaaw da ngay xam ne ah kii di ëppoon naa ñàkk yóbbu ñun ñuy xëy léeg-léeg jaar sédiment <laughs> ñun ñuy xëy léeg-léeg jaar sédiment donte nekkuñ ci tukki nag ndax Dakar ak fii du tukki waaye danga fay jaar léeg-léeg fekk gaa yi taxaw bu dee sunu sunu classe gi boo rombee gendarme yi taxaw nga droite ndànk ñu yéeg nga ne leen yéen oto yéen ko moom ndeysaan ngeen waxtaan bu wàcc loolu yonent bi moo ko aaye tukki yow dong mu teg ca beneen addis jële ko ci amr ibnu shuaib mu jële ko ci baayam baayam jële ko ci maamam mu ne yonent ba daa wax ne arraakibu cheytaan arraakibaani cheytaanaani wa thalatha rakb nee kenn kuy tukki moom dong seytaane la nee na ñaar ñuy tukki ñoom ñaar dong ay seytaane lañ nee na ñett war a tukki <laughs> cey waaw ñett ñoo war a tukki arraakibu ah seytaan arraakibaani seytaanaani wa thalaatha rakb rawahu abu daawud wa tirmisi wa nasaa'i bi asanid sahiha tirmisi naa na xadisun xasanun lii lim ciy tekki rek mooy dafay aaye kenn kuy tukki yow dong ndax bu ne kuy tukki yow dong seetaane nga neel man du ko defati mu jeex tàkk amul benn commentaire nag no comment yun daal nee na yow dong seetaane nga nga ne tey lay mujj tey lay mujj tukki man dong taal sama oto jëm ci ma xam mbàkkal man doŋ tey lay dakk waaw tey lay dakk su boobaa yaa nga dund sunu yonent bi alayhi salaatu salaam mu ne arraakibaani sheytaanaani nga ne tey lay dakk maag muur ko jëkk képp ci oto bi déedéet fokk ñu am ku ñu ñetteel fokk ñu am ku ñetteel waaw Abu Daawud moo ko nekk ci te lii mu jàngale ki tukki ba paan moom doŋ dana xam lii waaye bu nekkoon ñett kee di wekki pënu ba kee teg la ca la ñuy teg ca tali ba kee di dindi di dindi secours bi waaw da fa mën a gaaw a jóge waaye bu dee yow dong si rawatina bu dee oto sëriñ nga xam ne kirij ba day yàqu ah ndeysaan secours ba amul ngelaw oto sëriñ <laughs> ngeen baal mooy yéen sëriñ si nun sëriñ sépp nun la suñu oto yi mel ndeysaan yàlla nunu yàlla yërëm waaw xóoj waaw mayam foofu daal <laughs> ñu jële ci Abu Saïd mu jële ci abu mook Abu Hurayrata ñoom ñaar ñu ne yonente daa wax ni ida xaraja thalatha fi safar fal yu amiru ahadahum bu ñett àndee di tukki bu ñett àndee di tukki nañ wut njiit nañ wut njiit bu ñett àndee di tukki nañ désigné kenn ne yaay njiit li hmm? waaw waaw léegi kooku ñu ne yaay njiit li nag bu ñuy dem gaaraas mooy wax ne super la ñuy jël gaa yi ne acc wala mën a njaga njaay jël gars yi ne ay ca wala mu ne sept places la ñu jël gars yi ne ay ca moom moomu nga xam ne moom lañ désigné mu nekk amiru yoon wi moom mooy désigné loolu ñu départ di génn dakaar mu ne péage la ñu jël ñu ne ay ca waaw ñu génn dakaar mu ne nañ jàdd ndékki gars yi ne ay ca <laughs> waaw gars yi ne ay ca moo tax xam naa ku ko def amir imaam Abdoulaye Ndaw da nga jàdd ba sonn waaye daal tukki bi daal bëgg nañu kenn ñu jiital ko moo tax penc mu amul loolu anarchie rek lay jur sunu penc yi nga xam ne daa bëri parti moo tax fi ne kenn mënu rek régler mu ne cocc sunu élection yu jublu rek xoola rek ku ne bëgg ngaa jiite réew mi déggagum nañ juróom-ñaari candidat man déggagum naa ko juróom-ñaari candidat te ku dem des na fanweer des na fanweer waaw te man pareeguma fi ne man tam pour sama sama ndax bëgg naa bokk ci présidentielles yi comme ñëpp dañu bëgg bokk xam naa bu duggutoon nag français bi ñu ne ku déggul francais doo bokk day saan yàlla nu ma yàlla yërëm kon bu ñu waxoon ku déggul pulaar waaw kay ku déggul wolof waaye ku déggul français doo bokk moo tax ñiy ñiy falu ci réew mi te français rek lañ dégg yor waa réew mi jafe leen mhm. ndax am réew da xam ndax wa maa arsalnaa min rasulin illa bi lisaani qawmihi am réew ku leen xamut mënoo leen mënoo leen wommat ma wax la ko tey da leen di xam waaw ngeen baal ma ci ton bi may waxe nii mais fi ñu toll nii candidat yaa ngi sampe rek man dégg gum naa juróom-benn te boo laajoon Isa mu ne la dégg naa fukk ak ñaar waaw <laughs> waaw dégg naa fukk ak ñaar loolu kenn xamuñu fu mu dem mu ndax ñu sonn rek léegi nag parrainage ak dañu bëgg tànn nag non démocratie lañu war a ñeme dañuy nax démocratie bi léerut waaw loolu wax tey bu si biir saa di ay kaf dañu noon réew mi borom mi carte la ñuy fal ndaxte moo xew ci réew yu ga réew yu mag yi fi dul kaf waaw ala kulli xaal yonent bi nee bu ñetti tukki nañ jël kenn def ko amir te topp ci ay waxam mosoon na koo def moom yonent bi alayhi salaam di yónni ñetti nit daal di ne diw mu ne ah mu ne ko nga nekk seen amir kooka nag di leen jiite ba ñuy dem ba ñu ñibbisi moo moo mooy ilimaan ji moom nag muy julli julli gaa yi xamut muy julli julli gaa yi xamut te ñi muñ ko corriger ni muy jullee nii boo ak li ñu xamoon ñoom moom ni muy jullee day jàng faatiha teg ci ixlaas teg caw saara deuxième rakk mu jàng faatiha teg ci ixlaas teg caw saara noonu lay jullee timis nun lay jullee gee nun lay jullee fajar te gaay ñi muñ ko corriger ndax mooy amir mhm, ñi muñ ko corriger ndax mooy amir ñu nekk ci rek ñoom di julli ci gannaaw ba am ay fan bi nu ñu bisee alayhi salaatu di waxtaan ñoom ba agsi waaw nu ngeen defek seen amir bi mu ne ah moom kay tabarkàlla waaye daal am na lu ñu jaaxal ci ni muy jullee nu muy jullee ñu ne moom kat day jàng faatiha teg ca xul wallaahu ahad door caa tegu saar julli yëpp yonent bi ne amir bi yow loola jóg dugal ci loolu mun na ko man daal yaa rasulullah sama xol bi dafa sopp sootul ixlaas yonent bi teg ko loxo ne ko yàlla sopp na la <laughs> waaye li nga ciy jàng mooy amir bi ni mu doon def gars yi ñu muñ koo corriger ñun rek ñoo ñemee corriger suñu kilifa max la ko tey nun rek ñun ñeme nañoo corriger suñu diine ñeme nañoo corriger suñu kilifa ak politique ñem ni ñoo corriger corriger suñu ilimaan maax la ko maax la ko tey ñun yàlla na nu yàlla yërëm lépp nag ci liberté ak démocratie mbokk yi maa ngi ci min ku noo si sunna maa ngi ci nu ñuy tukkee maa ngi ci buntu bopp sopp nañu koy tukki mut kum àndal sopp nañu mbooloo muy tukki ñu désigné désigné désigné kenn mu jiite tukki bi beneen hadis ñu jël ci ibnu abbas mu ne yonente ba daa wax ne xayru sahaaba arbaa wa xayru saraya arbau mia wa xayrul julus juyus arbaatu alaaf wa lan yuxlaba isna asara alfan min xilla ay kii mën a jàngale sallallahu alayhi wa sallam nee na ànd àndandoo yuy tukki la ca gën mooy ñi mat ñeent mbooloo muy tukki daal la ca gën mooy nañ mat ñeent chauffeur bi ki na ci droitam ñaar ñi ne ci ginnaaw ñuy ñeent waaw xayru sahaaba arbaa waaw àndandoo yi gën ci tukki daal nañ man nañ mat kat nan ko jàng ba noppi appliquer ko bu ñuy tukkeetu nu fexe ba mat kaat waaw hmm? ah, waaw ñu fexe ba mat kaat nee na wa xayru saraya arba umya nee soldaar suy jàng xare soldaar suy jàng xare nañ mat ñeenti téeméer waaw quatre cent soldaar suy jàng xare waaw di ñu leen defal formation nañ mat ñeenti téeméer ñu ne waaw mu ne soldaar suy dem ca xare ba nag nañ mat ñeenti junni soldaar si gën ci soldaar si dem ci xare ñeenti junni lañuy mat quatre mille hmm? ñee quatre lañ ñii quatre cent ñii quatre mille ñu ne waaw mu ne mépp mbooloo mu mat fukki junni ak ñaar nag ku leen di gañe nombre bu néew du tax nga gañe leen hmm, waaw douze mille soldats ku leen gañe nombre bu néew taxul nga gañe leen xanaa yembar ak yaa fuskaay ak yu nu demee waaye nombre bu néew moom taxul ñu gañe leen alayhi salaam mooy jàngale waaye li tax ñu indi hadis bi mooy xayru sahaaba arbaa kuy tukki ñett baax na ñaar baax na ñeent a gën kenn nag baaxut kenn nag baaxut ñu bàyyi ci xel ñuy tukki ñépp tabarakallahu euh, tukki it dafay am nuñ koy defee ndax tukki xit atun euh, min al tukki dafa métti laaj ko ñu demoon makka laaj ko ñu demoon makka tukki métti na de waaw dafa neex nag ndax wolof di wax naan euh, tukki bànneex kuy tukki bëgg nañ ngay wàcc léeg-léeg nusul tukki bëgg nañ ngay wàcc léeg-léeg boo fi jógee jëm cil maxa mbaakool boo àggee ngay mexe wala nga àgg Kébémer wala dëkk yooyu mbaa Louga bëgg nañ nga nga nga wàcc bëgg nañ nga wàcc fudd say tànk noppalu bu dee ndaw ku ndaay ñu naan lu sedd mbaa ñu naan lu tàng yéegaat tukkiit su ma nee nekk tukki ba mu guddi nga fanaan baax na tukki ba mu guddi nga fanaan baax na moo tax réew mi bi mu amee fi na ay auberge ay auberge bu fekkoon meneen réew la bu bokkut ak ma aaday Sénégal boo tukkee dem ba Kaolack waay waay te jëm te jëm Kaffrine mbala nga jëm euh, Tamba ah fanaanal fanaanal laajteel docteur Sarr dem ci oberse ba tëdd fa boo jullee fajar ba noppi xëy continuer almabiitu ak naw mu dafa bokk ci teggini tukki nuzul mabiit naw mu dafa bokk ci teggini tukki te mooy wàcc noppalu fanaan léeg-léeg nelaw léeg-léeg ndax ki fi jóg a jëm Tàmba bëgg koo xotti wenn yoon fu ko nelaw dabe rek mën naa mën naa mu def jëya <laughs> waaw man mas naa nelaw ñaari yoon ndeysaan yal na ma yàlla yërëm <laughs> waaw benn bi damaa jógee Tiwaawoon ca burdu ba waaw ca burdu ba tëjtal burdu waaw mu xaw a guddee muy góorgóorlu ba ñëw ba ñëw puut waaw rekk commencé di zigzag tëli bi ma xam ne man bii maa ngi nelaw ma jàdd ci wetu jaaykatu yàpp boobu à boo jógee Tiwaawan sérité oto bi rekk tëdd ci biir nelaw ba fiix <laughs> ma nett lu ko bàyyi mbay ndeysaan ma nett lu ko bàyyi mbay mu ne ma chauffeur bu mën a dawal mu ne ko ah mu ne mu lu yëngu ci oto ba rek na yët mécanicien ba ma ne ko waaw mu ne ma lu yëngu ci yaramam rek na jóg yaram ba <laughs> seetet bàyyi ma loolu ma jàngal ci dawal mu ko daan yóbbu mbàkke di sànni la ma doon jàng ko ni def noonu la <laughs> seetet waaye lu am solo la gëmmentu moom nelawal rek beneen bi dañ doon dem ndar maa doon dawal ma ànd ak gaa yi ñu dem ba dëkk Ablaye Mbay Peex waaw dëkk boobu Peex waaw Peex féex ma jàpp ma rek ma tàmbalee nelaw seet <laughs> ma tàmbalee nelaw waaw mooy droite bëgg nelaw far oto ba paan xam nga ne yàlla yërëm xuuj xuuji oto yi ma yor rek oto ba paan fa ndeysaan moo wala min ci am ne ko kaay jël sinu kenn mësu koo gis rek yàlla ma yàlla yërëm <laughs> dégg nga kon tukki wàcc baax na ca tëdd baax na ca nelaw baax na ca ñii dem màkk xam nañ ci dara dangay ngay dem ba mu yàgg nga gis seen benn benn straaxa benn barab bu noppalukaay dañ koy defar ba mu baax ujaaj yi di fa wàcc naan lu tàng naan lu sedd Euh, yeesal seen njàpp julli seen farata waaw noppalu acca ku nekk nu yëg ci kaar bi mu yéegoon kaar numéro deux kaar numéro trois nangam nangam ñu yéeg loolu ci sunna la bokk hmm? euh, bokk na ci teggi ni tukki lii lépp ay addis la mooy teeylu li nga war am ak teey ci li nga war bu dee fas bu dee gëléem bu dee mbaam bu dee sareet bu dee oto yërëm ko yërëm ko ar rifq bi dawaab yërëm ko de ndax oto bi boo ko yërëmee mooy danga koy dawal ba mu yàgg nga seet ba xam manqué na ndoxam déet nga may ko ndox mu naan moom oto bi ba dawal ba mu yàgg nga gis ne euh, dafa mar meneen ndox mu dul mu dul ndox xanaa carburant la la la la manqué nga nga jàdd ci station bi duyal ko ci ba ba màndi mooy la jërëjëf <laughs> moo tax léeg-léeg nga doon ñàgg tableau de bord bi la ne mar ndox sàngam <clears throat> tableau de bord bi waaw bu dee oto yi nga xam ne seen tableau de bord mi ngi marché ba léegi <clears throat> nga xam ne ñoom dugguñu woon ca ndox ma daaw <clears throat> tableau de bord bi ne la damaa manqué ndox sàngam nga jàdd defal ko ndox mooma loolu ci ci ci ci ci ci sàmmoonteeg ay àqam la bokk léeg muy dem yàgg nga oto bi na la man de sama pneu bii dafa manqué ngelaw moo tax ma diis lool nga jàddu ñu defal la ci ngelaw waaw hmm? waaw dagan na it nag kuy tukki te war aw fas nga war ci yàgg keneen wala mbaam nga war ci yàgg keneen maanaam yóbbaale <clears throat> yóbbaale wolof doon ko togg togg léeg-léeg gone yi def ko ci scooter yi waaye nag bu dee ñett nag ëpp na scooter kenn rek nga sañ a togg waaye rikk waaye bul ko romb lu ñuy tere kenn du ko def waaw lu ñuy tere kenn du ko def euh, damaa ñëwoon ci yi kaaba gi di dugg ña ci bunt ba am ko ne ma dañuy tere ko dugg fii ma ne ko ah, lu ñuy tere de kenn du ko def ndeysaan waaye wax na dëgg mbokk yi benn bind ak noonu ci nu ñuy tukkee yàlla nañ ko mokkal ñun ñëpp te di ko def danañ ko déglu benn yoon ñaar incha allah jàpp ñett buñ ci noppee indi bu bees ci yi nga xam ne mooy bu vendredi bu samedi ak bu dimanche jaajëfal leen jéggalu soxna yeeg sëriñ si ak seen foo rekk si jotaay bi ndax suñu mbokk yi xëy ci xibaar yi ñu ngi ne tax yor seen i këyit